Heavyweights.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 UCSD infirmier bi yàq ëmb bi mu ngi wuyoo ci turu Christian mbir moomu nag nee ñu nii la demee étudiante bi dafa ëmb lu toll ci juróom-ñetti weer ndax woo nee na bëggul woon baayam yegg ndax xam na ne bu ko baayam yegee sàgg ne ak gàcce mën na koo yóbbu foo xam ni maara dee taali mais sa xunta loolu tax étudiante bi gis ab xaritam mu dal di ko booleeg ab infirmier naka noonu ci la ko infirmier bi joxe ay comprimé yoo xam ne njëg gi mu ngi toll ci soixante mille étudiante bi dal di koy naan bi mu naanee comprimé boobu nag ci la lii xew-xew ëmbam bi mu ëmboon juróom-ñetti weer dal yàqu waaye nag mu jël di ci moom de ndax étudiante bi bu mu jëlee comprimé yi ma ne urgence la mu jee teer yi ay waay jigéen bi mu teeree urgence ci la médecin yi constaté ci moom li ñuy tuddee hémorragie interne bu doy war analyse yi tamit wane ni am na fotis bu nekkoon ci biir bi bu fa jóg si la médecin yi soupçonné ne étudiante bi li mu doon def mooy avortement clandestine ci la ñu alerté police ba ñu mujjee teg loxo eti jant bi waaye ci kanamu yoon Christian di infirmier bi moom daa weddi tuuma yi jant bi teg ci kam ndax nee na eti jant bi bi mu ñëwee ci moom lim ko wax mooy dafa am mettitu biir bu metti dal di koy solliciter ay soins naka noonu ci la ko joxe comprimé yooyu waaye su xamoon ne yàqum la ci jublu infirmier bi nee du ko def waaye lay yi bi lay yépp yeeyul benn yoon attekat garab bi ba tax étudiant bi ak infirmier bi ñoom ñaar ñëpp daaj nañ leen ñaari weeru kaso yu ñu war a tëdd ma ne leen ak déli yu mel nii bakkan mënoon ci des ñaari weeru kaso fii mooy Sénégal moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax enseignant bi moom li mu def ëpp na jéggi na dayoo ndax dafa xuloo ak corom dal di koy menacé ne dina publier ay vidéo am ci site pornographique bu bon boobu ñu naan ko ci barma <laughs> yi moo taxit mujj nañ koo teg loxo enseignant bi mu ngi woo ci turu jéeme at yi toll ci fanweer ak benn moom daal corom bi mu doon génnal di wuyoo ci turu Aka Diouf dëkk fii nii ci Ndakaaru moo ko porté plainte ñoom ñaar nag nee ñu dañu doon génn ku ci jigéen ki nekk fii nii ci Ndakaaru enseignant ba nekk fële ca Kolda li tubaab naan relation à distance enseignant bi nag bi mu demee ba wax ak téléphone corom si bëgg kaa la dal di baabee coro si ba coro bi mujj koo envoyé ay photo ak ay vidéo yoo xam ni bët bu ci tegee tuuru yaa seexul Ibrahima Baba Lamine Dias ay waay jigéen ñi bàyyi leen envoyé seeni photo ki bi loolu amee na ci la ko enseignant bi daldi di capturé enregistré vidéo yi ñoom ñaar nag bi ñu amee ab dispute maanaam xuloo bu tàng ci téléphone ndaw si jigéen si dal di koy saaga nday ci saa si bi dal di koy envoyé photo yi ak vidéo yi ba noppi dal di koy menacé ne dina publier vidéo yi ak photo yi ci site bu bon boobu ñu naan Kocc Barma moo taxit procureur mujj na def li ci war ndax enseignant bi da doon jéem a xiini xaana te enquête bi nag li mu wane mooy enseignant bi ci boppam demoon na bay marché marchande ak ndaw si ci prix. Eh, astafurlah. <laughs> waaw waay. enseignant waxit ci kanamu yoon. ne supprimer na vidéo yi ak photo yi bu yàgg. te it musu fenn fu ko nit mën a gisee. moom daal li mu doon def mooy. xuuxal ndaw si ak koo tiital. ndaw si daal koy jëlee au sérieux. ba yëf yi yegg fu mu yegg <laughs> moo tax ma ne bàyyi leen fo bu bari bi ma ne am na yoo xam ne kenn du ko foyee waaye waa de moom seen recensement bi toj na réew mi Sénégal góor ñi ñëw ëpp jigéen ñi moo ma jaaxal ah, ba beneen yoon mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz